بخي امول بخي امول دان كوي شكرا لله عز وجل واما بنعمة ربك فحدث واما بنعمة ربك فحدث لول لاني واخون غورغا غورغا رومبون جروم نينت جروم نينت نيت ني جامو والضحى سورة الضحى شنت بجك والضحى والليل إذا سجى شيخ طفى ما ودعك ربك وما شيخ في حرز ولا وللآخرة خير لك من الأولى محمد الغالي طفج ولسوف يعطيك ربك فترضى شيخ الحاج عمر طفج ألم يجدك يتيما فآوى ما ألف طفج ألف إما يرضي ألم يجدك يتيما فهوى متربط وجدك ضالا فهدى مام عثمان بجر سيد الحجماني وجدك عائلا فأغنى سيري بابا كتب Bahwa baaxul moo tax ñu ni moo tax ñu ni maam Ousmane jël na wér du cheikh ndax mën nañ ko jël ca barsax jàppandi na waaw looloo tax mag ñépp ni maam Ousmane jël na tariqa cheikh ndax nit mën na ko jël ca barsax du ko wàññi dara moo tax suñu bàjjen yu baax yi sunu baay yu baax yi ku la ci masaan nuyu si demba la lay wax wallaay ndeysaan problème bu sérieux la ku la ci nuyu rek ni si dem rawatina sama bàjjen um këlsëm si demba suñu baay ku la ci nuyu si demba suñu bàjjen yi ku la ci nuyu si demba mag ñi ku la ci nuyu si demba parce que dañu poser problème lu sérieux mooy Maodo li mu nekk daf ko fort wala daf ko doon ñu ni daf ko doon fortu wu ko ku gis ni mu ko amee xam ni fortu wu ko daf ko doon ni nga ko jële ci Maam Ousmane te loolu ça n'a rien à voir avec la confrérie waaw te ku ko mujj àtte sunu maam bax baax bi alaji ibrahim nyas alaji abdullah nyas wax alaji ibrahim nyas wax na ma ni mom mom mujj atté affaire ba won len ni mawdo bi muy lat am cër ci tariqa bi fekk na ko mu don maam usman ba nopi kon nag ci ram fortuwu ko mo rek si dem nga dan bajen bulu nuyu ni la si demba bay bulu nuyu ni la si demba mam bulu nuyu ni la sa demba ñom mam demba njaay ak bay ali seeg sam bajje nak ku la nuyu rek si demba parce que problème bobu dafa poser won mais legui nak tout yaa yaangi fi ñay wax si mali parce que problème bu le xamuñu ko xamuñu ko wallaay ah wallaay ah wallaay بموي لا تدن والطريقة دي دفا دن بابام بنبي مام عثمان موتا بيوا غنار نيوي دي نوكيل سيني بابكر ñu delloo ko cër ba salilu cheikh yi salilu cheikh yi nuru abiyi fii yi te mooy xaaj malik ونور أبي أبيه من مام عدوانتي مام دم ببن ومرشديه كخالي شيخي حاج عمر وفوتي والجدوي الفاهم ما يرى حاج عمر الفوتي كخالي الشيخ الفاهم ما يرى والجدوي حاج عمر الفوتي وغالب محمد الغالي أئمة ديننا ومجدده وأعطي من أبي العباس نورا والنور المصطفى قد يصطفي سليل الشيخ نور أبيه فيه ونور أبي أبيه ومرشديه كخال الشيخ والجدوي وغالنا أئمة ديننا ومجدديه وأعطي من أبي العباس نورا ونور المصطفى قد يستطيع ونكون فمن لم يستطع بسناه منكم سفيه يا له أو كالسفيه